xam yàlla ñu xam yónneen ca baawoon ba tey mu jaar boroomam ña xam yàlla ña xam yónneen tey kenn jaaragul mu jaar baraamam te wax ji moo ko wax ba ko noon yooyu boo ko dingat wax ji moo ji yokk baraamam ci gi jalalam be yàlla ba fekk muy géej mu tënk jëleeri xëy bu ya naan boromam ci gi jala dàqe seytaane ki gaayam bu ñuy maat muy taxaw fratey boromam ci géej la bamba tijjee ndambi xam-xam ba faf yoru ali way xalimak baraamam bàgg ci yàlla àgg ci ngën ñu soppi ko soppi léppam muy baraamam al foofe jaari bakkan caay at di boole tëgg ak julleeg baraamam faf sey mil ni suukar far ci yonnen di moom muy moom ci baatin cey baraamam ñu bokk ko fal te ful ko ngërëm mu fab kun ñu wab ma turuy jox ko mu jox baraamam di kenn ku ñëpp xam foofe ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa di yeem baraamam mu fab di bi tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boroomam malaaka seere balga am fa diiwaan muy fal ay xutbu idee ak balaa bi aras ci baatin ñu di soog daam te mu jeesi baraamam te mooy wutaatu yonen far ci kaw di mbootam kun ci lépp lu baraamam mu làq ngërëm ci zaahir ak ci baatin maqaamam foo xam mboolem ñoñ baraamam sëriñ tuuba di max naam dex ku dem duy ku soobu niis bu génnee xam boroomam ku soobu tey wey taw yoonam wa feesal ci leeram ba fab di duyal moroomam ku soobu dex na xam ndox daf bi yeewul te watum ndox tewet na teex ca biiram ku saggan sanku faw talab to doo duy te doo set doo setal doo xam baraamam lay bàmbaa ngi waaju xamul ne dégloo te royrul ni jikkoom ya moo xam boroom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 di génne góoru ci toskare jox boromam di kenn ku ñëpp xam foofe ci baytin tubaab ya di bañ sëriñ sa diyem boromam mu faf dib janti tiim jépp duniya di taalif téere yuy selal boromam malaaka ya seere pal ga am fa diiwaan muy fal ay xutbu yi dee ak boroomam balaa la fa am ci pi aras ci baatin ñu diisoo daam te muy jaay si boroomam muy wutaatu yonnen par ci kaw di mbootam kun ci lépp lu sob boroomam mu lakk ngërëm ci zaahir ak ci baatin maqaamam faw xam mboolem ñooñ boroomam maqaamam faw xam mboolem ñooñ boroomam sëriñ tuuba di maxnaam dex ku dem duy ku soobu ne mes bu génni xam baraamam sëriñ tuuba ab dex ku dem duy ku soob ni mes bu génne xam boroomam ku soobu tey wey taaw yoo na wa feesal ki ay leeram ba faf di duyal moroomam ku soobu dex na xam dox dag yeewul ca watum ndox lewet na te weex ca biiram ku sàggan sànku faw te lépp doo duy te doo sedd doo seddal doo xam boromam gaañi melay bamba ngi waaju xamul ne dégloo toroy roy jikkoom ya moo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ko tooñ mu jéggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ku ko fañ di neexal safoo ku ko soof ku dul koy mooy boroomam di faj aajo xam lay mboo di seexal di génne guru ci toskare jox boroomam di fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boromam di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam mook boromam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baaw mu fóot ba mu set defal mbooloom boromam melay kayaag melay biiram dëppoo du digle lu bon du déglu ku dul boromam du mooy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy du bëgg du bañ du faale ku boromam du jàq du du jaaxle du fàtte yonnen te mas la tawan lu xew ci ku boromam du daw ay noon du yoxi yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb ku boromam lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yokki du daw di mbër mu farak boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du déggook noddu mbaab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cay boromam du tab jëbbatim du woote masuli maamom du gàppru bis du wéeru julil boromam jërëgeen jëf noo ngi ñaanal sax Muhammadul Muntaqa